la génne euh, beneen bi it xaj Abdoulaye defe naa. Mhm. nee na gis na. ci bërëb buy neige. buy neige waaw mu gis. yéen yéen teel a Isa Jésus-Christ mu del mhm. leen yërlu. Mhm. nestuut mu réer leen. gis nga xaj Abdoulaye galaas a salju fil xulmi diqun shadid diqun shadid fi xayaati insaan galaasu guddi jafe-jafe la ci wàllu wërsëg. boo ci nekkee balaa ngaa jot sa wërsëg dana jafe soo géntee nekk ci biir boo dee séntu dara balaa sotti dana yàgg suñ la diggoon dara yit balaa mu ñëw dana yàgg mooy glace bu doonte ndaxu keese daal bu amul galaas moo doon gën muy glace waaye nag ru'yatu nabiyullahi isa gis ab yonent moom moo xam da nga koo xelmati moo xam dalaa feeñu ak nu mu la mënti dikkee rek ab yonent moom gis ko moom yiw bu bari la xewal bu bari la koy jural aaju gu faju ci zahir ak ci baatin dafa am solo lool lool euh, xaaji Abdullah ñu jël ki ci ligne bi am na ku nekk ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa jàmm. sant yàlla. alhamdulilah léegi dama amee ne gént. bismillah. waaw dama géntoon jamono yi la ca ginnaaw. Mm-hmm. mel ni kuy naaw di après ma dellu eh, géntaat mm-hmm. may dawal sama oto ba jub am ndox mm-hmm. oto bi fereenewul te jotumaa yegg mm, ngay dawal oto waaw ma may dawal oto waaw mm-hmm. après bi mu amaatee ay quelques jours ma géntaat nekk ci biirum ndox ndox mi dikk ba ci samay wagg gént naa ko ñaari yoon nga nekk ci biir ndox waa ma nekk ci biir ndox ba ndox mi dikk ci samay wagg ci la ma toll ma ne waa ndox mi mbaa du problème. Mm-hmm. waaw loolu shukran wa ala kulli xaal dinañ ci indi ay leeral léegi xay Abdoulaye ñoo ko déggandoon nee na bu njëkk bi. Mm-hmm. Euh, dafa gis boppam mel ni ku ci kaw asamaan si. Mm-hmm. ku nekk fu sori ci kaw asamaan si nee na loolu la njëkk gis. Euh, euh, loolu moom yow bu bari la xay Abdoulaye wax nañ ko léegi. man raa nafsahu fi shay ala cheyin aalin aw fi samaai fa dalika xayrun anhu wa taqaddumun anhu wa najaax min jami nawaaxi yiw la yokkute la ubbeeku la aaji gu faju la ci zahir ak i baatin mooy nekk fu kawee amaa nag deuxième bi nee na dafa génte dawal oto mm-hmm. ba dem fu toll bato defe naa am ndox baaw mu bato bi freiné waaye xam nga dawal oto moom Euh, da ngay nekk ak jigéen joo xam ni commencement bi day neex waaye mujj gi day bëri tolof tolof mooy dawal oto ba àgg fu mel noonu. Mhm. jigéen la joo xam ne ji commencement bi seen diggante dina neex lool waaye mustaxbaluhuma seen mujj ñoom ñaar dana tolof xam dina bari jafe-jafe dana bari tolof tolof mooy oto bi. Ah, ma troisième bi nag alhamdulilah nee na gis na boppam ci ndox mu bari ba xaw ndox mi xaw koo jaaxal sax ba mu xaw ci am tiit. Mhm. gis nga ndox mu bari moom yiw bu bari ndox mu bari xeewal bu bari ndox mu bari ubbeeku bu yaatu mooy almaau almaau fatxun almaau yusrun almaau fi xayaatil insaan yërmande la xeewal la yokkute la ci fànn yëpp waaye wa ala kulli xaal dama koy wax mu dëggal mu jënd tàndarma xay bu dee kilo baax na bu dee libar baax na isa kaana aksar min zalik bu ëppee loolu sax Euh, yiw la mu génn mu génne ko sarax li wacci laayal karim xaaj Abdoulaye tafaddal jërëjëf oustaz ci wàllu gént naka la ñuy tekkee gerte moo xam nga gént ko di ko lekk wala ñu di ko jënd waaw waaw xam nga gerte dama koy farataal di wax toujours gerte moom xat-xat la bu ñu nee xat-xat dañuy tënk mhm. ndax al ishaara fii li man ànqala junj doy na borom xel bu ñu nee euh, xat-xat li ñuy li muy wund mooy benn nit mën na yootul lu yeex a sotti mm-hmm. loo yaakaar mu tas loo am du toog sa loxo te loo dugg ba yaakaar mu sotti du sotti loolu mooy alfustox mooy gerte allahu alam bu tooy ba la wala bu wow ba kilahuma ala xaddi sawa benn la xaaj Abdullah bismillah dañuy ñëwaat rek ci li ñu waxoon sànq ci xale yi nga xam ne eh, dañu am benn melokaan goo xam day jaaxal day dem ba jaaxal seeni waajur waaw kooku moom dama ciy daal di ñëw léegi waaye ma jël ki ci nga may ma jël ki ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ bi yàlla yàlla nangu ziar amiin ah, dama doon eh, bëgg nga firil ma ñetti gént bismillah bu njëkk bi mhm. eh, dama gént Mhm. sama goro bu góor mais damay génn rek dégg baatam lu may wax ay xasida yu Serigne tubaab ni jàpp na xasida yi mhm. am na xasida bii boo ko jàngee lii ngay am xasida bii boo ko jàngee lii ngay am li mhm. ma limal xasida yi ba ma egg sama buntu kër mu ne ma euh, vingt cinquième jour weeru koor xasida bii boo ko jàngee lii ngay am mais fàtte naa xasida yi yan la boobu mooy benn ñaareel bi mooy euh, man léeg-léeg euh, damay damay xool di mel ni dafa am lu may gis daal sama kanam. Mhm. mais du ma xam exactement lan dafay mel ni ay bind dafay transparent. Mhm. léegi ma gént fan yële paase di wax sama yaay ne ko ah yaay xam naa euh, li ma la doon wax ne maa ngi koy gis. Mhm. xam naa lan la mu nekk mel ni flamme mel ni flamme sondel. sama kanam. ci gént bi. Euh, fan yële paase tamit. gént naa sama sama benn mbokk. yor pistolet comme lu mel ni pistolet mais du pistolet ndax gisuma ko mais li ci génn lumière la bu dal sama kaw. Hmm. waaw loolu ñett yooyu laa bëggoon xam. Hmm. baax na jërëjëf incha allah dinañ ci indi ay leeral léegi soxna si. shukran wa ala kulli xaal euh, na bu njëkk bi benn gorom dafa naa hmm. ko jox ay xasida waaye xamul xasida yi yan la jàppul xasida yi. Euh, waaye mu ne ko vingt cinquième jour ci weeru. ci weeru koor ci weeru koor di jàng xasida bi. Mhm. Euh, dafa baax. Euh, loolu nag xaj Abdullah lu wér la xam nga dañuy wax ni xasaid Cheikh Ahmad Bamba fiiha manafi mutaaddida laa tuaddu wa laa tuxsa Cheikh Ahmad Bamba dafa jël asar xuruful quraaniyati Mm-hmm. mooy leetaru alquran yi yëpp mu tëgg ci ay xasida yoo xam ne benn bu ci nekk ak njëriñam la waaye bu ci gën a gàtt te gën cee leer daal su ko mënee te ma di ko ko digal mu di ko farataal def muy bismillahi yan mulluhaay bila manaahi wal intihaay gis nga eh, foofu Cheikh Ahmad Bamba dafa tëgg Euh, lu ñuy tuddee ñun ismullahi al azam al kabir al akbar al jalil al ajalli mhm. allazi daa bihi ajaba wa man saala bihi ata muy bismillahi Cheikh Ahmad Bamba bu la nee bismillahi ci tur boo amee ak dégg lool nga xam ni tur bi mu wax mooy bu mag a mag bi nga xam ne ci la ñuy ci yàlla ci la yàlla di defee lépp lu muy war a def ak lépp lu mu bëgg a def ñu tuddee ko ismullahi al azam al kabir al akbar mm-hmm. al jalil al ajali man daa bihi ajaba wa man saala bihi ata mooy bismillahi ci lay defee lépp nga dégg mu ne la yan mun loxaay bila manaahi wala intihaay kon defe naa ni di ko liggéey 66 ngoon 66 suba yiw bu bare ngi ci te yàlla mën na ko ci yokkal yeneen ak yeneen deuxième bi xaj Abdallah nee na gis na Mm-hmm. Euh, ci gént it wax dëgg yàlla euh, ay mbir yu xaw a wuute tuuti. Mm-hmm. mbir yi nag euh, jàpp ñu. exactement yenn saa yi day mel ni luy janeer. waaw luy janeer lu mel ni leer buy jóge ci fu sori. Mm-hmm. di ñëw ci moom gis nga leer nag buy ñëw ci jigéen. tekkiwul ne da ngay am leer waaye yàlla mën na nit may doom joo xam ne ji yakunu mashhur fi hada al aw yajid isman mashhur fi hada al aalam yàlla mën na ko dénk mu doom joxam xam ne turam day jóg wala ñu koy mu doon ku siiw wala ku ñuy dégg mooy hada nuur alladi yaraaha hadihi almar'a dafa am solo lool am solo la waaye daal dama koy dugal daal bismillahi mu sax ci ndax eh, ay njëriñam buñ ci doon wax daanaka mm, mën nañ ci yendu yenduwaat yi te moom xasida googu du jeex xaj Abdullah tafadal jërëjëf oustaz moom bu ñu xoolee euh, la mhm. ci ëpp ci moom la mu wax yëpp euh, dafa méngoog lumière parce que mhm. nee bu njëkk bi mhm. dafa mel ni gisul ñaareel bi mu mel nii la mu doon li mu gisul woon gis na ko ba wax ko yaayam ñetteel bi mu mel ni daal dafa am ku koy joxoñ lu mel ni pistolet te du moom te leer moo ciy génn xam naa ñett yi waaw xam nga mooy li mooy leer gi rek même bu ko yàlla may ay doom yu bari it ala kulli xaal dina ci am kenn koo xam ne kii ci la yàlla di defee ay mbiram yenn saa yi da ngay gis ci biir njaboot maam ci koo xam ne ki moo ëpp wërsëg ñëpp mm-hmm. wala moo ëpp xam-xam ña des wala moo ëpp ñeneen ña eh, mbir yàlla kooku moom yàlla moo koy def amaana nag mën na doon ci wàllu xam-xam mën na doon ci wàllu leneen ak leneen waaye li am solo daal na jàpp ni yàlla mën na ko may doom joo xam ne yakuna mashhur fil aalam yusma des na ko dégg na ci bàyyi xel ñu jël ki ci ligne bi te ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum salaam salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah soxna si. papa maa ngi wootee depuis France dama am ñetti gént yu ma géntoon ma bëggoon nga firil ma ko. Mhm, bisimilah. voilà benn gént bi damaa gént fan yee ñu ñu sori na rek. Mhm. am fenn fu ma demoon dafa wut liggéey ma dem déposé fa ay sama CV. Mhm. léegi ci gént gi maa ngi gént maa ngi ñëw ba ci kanamu magasin bi. Mhm. mu benn waaju ki ki ma jox sama patron bi ma jox sama kayit bi ma sama kayit bi ma gis ko mu taxaw ci bunt bi gàtt nga dama amal benn affiche lu ñu bind mais xaw ma luñ ci bind. xaw ma nag loolu lu muy tekki. Hmm. nee nag beneen gént bi tam damaa gént sama kër daal mais bi may wàcc suba guddi gi di liggéey ji noonu six heures du matin hmm. ma gis ay nen ba ci yoon am benn yoon bu sew bu may faral di jaar foofu yépp hmm. ay nen gént gi. léegi bi ma xëyee suba nag ci ëllëg si di liggéey li ma gént ma gis ko au lieu que yoon bi yépp fees ay nen damaa gis ma demee ba ci yoonu suuf bi mu am juróom benn nen. yoo xam ne am na si yu bari yoo xam dañ ko bind. ma daal di jéggiwuma ko nag ma daal di xool xool xool ko ba mu sori après ma daal di dem sama yoon. Mhm. léegi ñu gént bi nag damaa gént ma daal may wasin. Mhm. léegi daal ñu naa maan ah kii benn bu góor la mu ñu génn waat kii bu góor la kii waat bu góor la ah, ba muy ñett ñu génn waxa mu waxaat yeneen ñett jigéen jigéen jigéen. ma ne ah man de man damay man waaw juróom benn doom bi yëpp fan laa koy fan laa koy jëmee. Mm-hmm. après ma laa nekk di jooy ci géej di jooy di jooy di jooy après nag ci laa yeew. Mm-hmm. jërëjëf. shukran ala kulli xaal jërëjëf incha allah euh, dinañ ci indi ay leer incha allah.